alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah saa sallam mbokk ci yàlla fii moom mooy albaqiya mooy almeer yi nga xamante ni fii la ñu suul macha allah sahabatu rasulillah saa sallam sahaaba yu bëri ci sahaaba yonent saa sallam fii madina la macha allah muy dëkku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis ngeen jàq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi nële macha allah ci watu jàq ji foofu noonu ci la ñu suul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yu bëri Ousmane ibn Affan fii lañ ko suul macha allah ak uh, yeneen saxaaba yu bari sax ak doom yonent bi saa sallam ñoom Fatima radiallahu anhum ajmain ak uh, ñu ci bari ci soxnaam yi Aïcha ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen fii nag mbokk yi lii mooy almeer xool leen almeer yi nu mu simple xool leen amul leen luñ fi tabax amul leen luñ fi yëkkati ndax lan mooy que ni mbokk yi ñun ñëpp fii la ñuy delluwaat kon nañ ko waajal nuñ koy waajalee nag mooy fàttaliku ñett question yu ñu fiy laaj ci bàmmeel képp ku dee mbokk yi suñ la suulee ba nit ñi delluwaat xamal nañ la laaj ñetti mbir mooy man rabbuka man nabiyuka maa diinu kan moom mooy sa borom kan mooy sa yonent lan mooy sa diine duñu la fi laaj sa sëriñ duñu la fi laaj sa liggéey duñu la fi laaj lenn luñ lay laaj mooy ñett yooyu nañ ko fexe xam avant ñoo génn aduna tuub dellu ci yàlla ku dul julli na tuub delluwaat commencé julli koo xamante ne du respecté ay way juram na tuub delluwaat ci yàlla daal di respecté ay juram topp alxuraan topp sunna waaye topp ko comme ni ko saxaaba yi déggee waajal nag bés bi mbokk yi ndax fii dinañ fi ñëw wallaahi dinañ bàyyi kër ñu tabax yi dinañ bàyyi contrat liggéey ñu am yi dinañ bàyyi soxna yi dinañ di ngeen bàyyi seen borom kër yi adduna yi ngay daw guddi ak bëccëg di ko bàyyi fi la ñu mujjee tëdd mbokk yi sa njegenaay moom mooy suuf sa mbàjj mooy suuf sa lëpp mooy suuf ban lumière moom moo la fi njariñ mooy lumière laa ilaha illallah muhammad rasulullah nañu tuub dellu ci yàlla jël àdduna teg ko fii waaye jël yàlla teg ko fii jël diine teg ko fii bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam tey dund yàlla na yàlla yërëm ñu jéggal ñu nekkal suñu way jur ñu dund ak ñu faatu daan ñuy boole ñu ñëpp ci waa aljanna ya mbokk yi donc lii moom mooy moom mooy dëgg fii moom mooy almeer yi nañ koy waajal nañuy ñëw ci almeer yi di tuub di delluwaat ci yàlla di leen ñaanal yal yàlla yaram leen jéggal leen yal yàlla boole ñun ñëpp yërëm ñu jéggal ñu dugal ñu aljanna alhamdulilahi rabbil alamin